alors Bijou ñu ngi ñu ngi lay fay. tey mu nekk 8 mars journée mondiale de la femme la moo waral sa teewaay fii. Euh, sama teewaay fii du leen lu en tant que jigéen ah déjà muy fës déjà maa ngi nuyu mbokku internet yi ñuy seetaan yëpp à travers site yëpp ah euh, maa ngi leen nuyu bu baax di la nuyu di nuyu sa concert bi nga xam ne moom nga taxawal euh, tey suñu présence fii mooy wax dëgg yàlla porteur de voix yi ñu doon ba pare. jigéen ñi xew la tey ñu war leen a delloo njukkal donc ñoom ñii nga xamante ne fii mooy prison d'arrêt euh, bu femme de liberté 6 euh, euh, fii ci camp ñu ñëw fii pour ñoom it boole wan leen ni carrément ñu ngi bokk ak ñoom feet bi ay jigéen lañ nattu dal leen ñun bokk ko ak ñoom àndandoo ak ñoom saafante ak ñoom loolu mooy suñu teewaay fii tey ñu gis ne tamit daaw Sénégal dundoon na 8 mars mais si ay jafe-jafe ren ji tamit ñu gisaat moom maa am na leen lu xawaat si maanaam si mbir mooy artistes yoo xam ne tamit ñoo ngi jàpp seen jabar yi euh, jàpp ni ñoom leen di dóor à chaque fois euh, noo gisee loolu violence boo xam ne ñoo koy def ci jigéen ñi euh, artistes jàpp seen jabar yi dóor ko yooyu yëgguma ko mais xam naa ni <laughs> jigéen wax dëgg yàlla euh, am na leneen luñ ko war a mën a defal lu dul ay dóor wala leneen loo xamante ne euh, warloo nañ ko ak moom lu dul métital donc euh, ñun Sénégal baaxoon nañ chaque 8 mars ñu koy féete daaw corona bi moo taxoon ren wax dëgg yàlla dara xewul donc dañuy sant yàlla ba ba bët tout va bien donc ñu koy passé ci ci ci anam yu leer waaye nag dóore bi moom ak métital bi moom loolu du yoon te jàpp naa ne ñu ngi ci xeex boobu ba tey am na violence yoo xam ne peut-être ñii ñoo ngi si biir mais am na ñoo xam ne ñoo ngi seen biir seen biir kër di dund violence boo xam ne bu tar bu ñu jëlee cas boo xam ne mooy kii di Adji Sarr boo ko déggee si ay kàddoom sax mu ni pour mu nalaw sax maintenant c'est tout un problème yow en tant que euh, que loo xamante ne dafa war a nekk ci yoon la lu war a du justice war a war a tranché la parce que fii euh, jigéen bu nekk am nga droit tëdd nelaw am nga droit nekk si sa jàmm euh, bu fekkee def nga jàmm donc boo defee jàmm wax dëgg yàlla jàkk naa ni yaakaar naa ne jàmm rek nga war a am en temps normal donc loo xamante ne dafa nekk ci loxo yoon la te xam naa ne yoon dina ci doxal li mu war a def. yow nga nekk ku jege kii di Waly Ballago Seck temps yëpp ñuy dégg ñu naan Waly moo ngi takk takk suuf moo ak kii di Astou Miss Sénégal 2016 yan information yi ni si mën jox. aw ma benn information bu ma la si jox c'est des rumeurs yoo xamante ne yéen a ko def. donc waaw wax yéen a ko wax. donc di wax xam naa ne Wally moom wax dëgg yàlla man mi nga xamante ne maak ndey ma bokk ma wax dëgg yàlla ñaaniwu ma as tuuti ma ko donc euh, euh, <laughs> di ko takk-takk suuf ak yooyu yëpp ngeen di fësal di ko wax xam naa ne Wally nag moom moo leen dundal yéen seen site mais <laughs> wax dëgg yàlla euh, ñun ñun ñun ñun ñun tolluñu tukulóor ku la njëmee foo xamante ne dañuy takk-takk suuf na wax dëgg yàlla ah boobu nag non non non boobu boobu boobu ragal nag nekkul ci sama waa ji wax dëgg yàlla. mais ñu ngi wax seen relation ba léegi même fekkee takk amul tamit jàpp nañ seen relation am na ñoom ñaar. ah jàpp nañ ñoom ñaar am nañ benn relation moo ko assu. mais yow yow su dee la femme nga wax wala interview avec Wally mon cher rien compris en fait <laughs> parce que yi ngay wax nii c'est des absurdités loolu dara du ci dëgg waaw Wally fan la toll góor la. donc bis bu demee ba war a def loo xamante ne saawaay ji dangeen ngeen ciy jote foog naa ne du du du ay rumeur wala ñu ay nit yoo xamante ne ay nit yu no sens ñooy toog di wax ay ay sottise ngeen leen ngeen koy gëm nag di titre. merci ñu dellu ñu waxee jigéen comme mu koy waxee moo tax ñu ñëw nekk ak ñoom euh, pour épauler leen wan leen ne ci société bi la ñu bokk parce que tamit euh, euh, ñu préparer seen réinsertion loolu moo ëpp importance tey jii nit dinga nga wéeru sa kaso waaye nag euh, ak ak dignité ak personnalité ba boo génnee nga fexe bokkaat société bi tey jii ci ñoon loolu lañ leen di ñaax ñëw solo ba jekk comme ni ñuy toogee ci plateau war na leen ne que nit wax dëgg yàlla xaru jullit moomu ko nit sax moomu ko donc am nañ droit vivre am nañ droit dund ndax wax dëgg yàlla yàlla ci boppam mooy c'est le seul juge ah y personne d'autre waaw merci